mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bañ sant yàlla julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ngi noonu fa tabaarakallahu seen émission waa Kër Nabi ci seen télévision Safina TV fa tabaarakallahu macha allah ñu koy amal nag par altine incha rabbi bu ko defee mu ngi noonu Serigne Maodo si ma waxoon ne taaha bi zikrika غنت الأكوان وبنور هديك سادت الأزمان دفا واخني يو سيدنا محمد تود غي لي تود مو نات الانيفير بي تود غي لي تود موتاخ لير غي واتش تود غي لي تود موتاخ جام ام فتبارك الله واسفين تي في نك fasiyene amal nak seen émission bo xamne dañ koy jaglel sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko defé ci invité tagatu sayyiduna Mouhamed yi waaye di invité ustaas yi ñuy waxtaane kan moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax nak dañu bëgg nak sayyiduna muhammad saf sap ci xoli ndax Cheikh Alhaaj abdou neena hubbu xubbu taha lil muznibina najatun bu bëgge sayyiduna muhammad mucc te yonent yàlla muhammad neena man ahabani kaana maay fil janna ku ma sopp ku ne maag yow ñooy bokk dem aljanna kon yàlla ñu yàlla def ñu ñëpp ñu àndandoo bëgg sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu mu ngi noonu nag ñi nga xam ne bëgg nañoo sponsoriser émission bi fa na ñu woote ci 77 207 64 38 fa tabarakallahu émission baa ngi noonu na ko ñëpp bàyyi xel soppee Seydina Muhammad yi yéena ko moom fa tabarakallahu ñëpp daan ci gis seen bopp incha allah ci këru diine yépp nag ndax Seydina Muhammad la te këru diine yépp ñoo ko bokk wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu